salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi am mbégte di ubbi jataay yi nga xam ni moom la ñu jagleel waxtaanu màggal gi fii ci Argentine tey nag ñu fas yéene ubbee ak Serigne Yankoba jëwriñu daayira Sëñ Tuubaa bi fii waaye mu jiite fédération bi nga xam ni moom la kër daayira yi ci Argentine sëñ bi Guèye ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam alhamdulilah ala nihmatil iman wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada waa wa ala alihi wa xayri xadimihi wa ummatihi wa sallam tasliman eh, mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare di leen balaq di leen baal te ñaan sa yàlla bool nu jéggal eh, tey teg nuyoo bi ci loxol sëñ Gora Touba TV mi nga xam ne ñëw na ci daara ji tey ngir jël fii kàddu yu bàyyikoo ci nun suñ Gora ñoo ngi teg siyaare bi ci yow nga tegal na ko ci mboolem ku yeewoo Argentine mm-hmm. ñoo ngi lay siyaare di la balaq Mhm. tabarkalla ñu bëgg sa nuyoo bu baax li tere ñu yegg ci màggal gi bariwul euh, ñu ràññee Argentine mu nekk dëkk boo xam ne gis nañu ni ñu taxawee ci xew-xewi diine yi rawatina nag bis bu mag bi nga xam ne mooy ndayu bis yi ñu bëggoon a xam fan ngeen toll jamono bi ci wàccaay gi. waaw suñ góor a euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax ci bi nu yàlla defalee ñu am ak dégg euh, xëy na sax suñu dégg des na ba léegi ndax bisu sëriñ bi. ndigal sëñ Tuubaa dafa diis diisaay boo xam ne kenn mënu ko koo dégg ba fi mu ne waaye nag ñu fas yéene daw la ci suñu kéemtalaay kàttan rek ndax àqam kenn mënu ko matale ngir ndigalam moom yëmut ak lenn ndigal bi samit yëmut benn bis ci nun ñi nga xam ne ñoo koy tuddoo ba tax na loolu taxam na ñu nekk ci wàccaay boo xam ne ànd jëw kook ñu daayira yi nga xam ne ñu ngi ci fédération bi ak fu ñu fi mën a ne mu toll ci fi mu ne yokk bi yokk na ba toll ci ñeent fukki daayira ak ñaar Euh, te li ëpp ci daayir yooyu di ko defee capital am na ci benn benn yoo xam ne xay na fañ nekk dañoo sori ba duñ mën a ñëw seen daayir dañ koy defee waaye li ci ëpp daal ñoo ko fas yéene ànd ak ñoom boobu ba léegi nag ñoom ci taxawaay bi ci soññe ak addiye euh, yi ba alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ci sant yàlla bu baax. jërëjëf tudd nga fédération bu sosu ci 25 décembre daaw mu nekk boo xam moo lëkkale yi kon bu ñu la déggee dañuy ànd gi. waaw incha allah bi fédération argentine bi mboole seen lu dut ñi nga xam ne fa ñu nekk daa sori ba mënuñoo ñëw te xam ne mbirum sëñ Tuubaa moo yaatu yaatu koo xam ne bëgg nañ ñun li mooy mu tas ci réewum Argentine mépp te réewum Argentine nekk réew mu mag moo xam ne xëy na loolu dana dana dana jafe waaye lépp ci fédération bi ci daayira yi ci bootu daañu def daañu ñëw fi fekk seen incha allah ñu àndandoo ko ak ñoom loolu dafay tekki ni dina am lu yees ci màggal gi ni ngeen daan màggale comme ren loo xam ne dana waaw dana am lu yees ndax mbirum sëñ Tuubaa moom amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ba tax na ñu waajal ko waajin woo xam ne jël ay commission yoo xam ne eh, eh, organisateur ñoom sëñ Bàmba ak ñu koy jàppale ñëpp ñu fas yéene ko defee def ngeen woo xam ne dana waroog gu fi mës a jaar loolu moo doon ci moo ci doon suñ yéene ren ci mbooleem yokk bernde yi yokk liñ ci daan def ci ay lewetali gàtt ak yéen deme ak fas yéene invité nag mbooleem autorité yi nga xam ne nekk nañ ci réew mi ngir ñu xam bisub Sëriñ Tuubaa bi mooy lan ndax bu yemee ci noonu rek day des gis nañu bu yàggul annoncé nañ ko sax mu doon benn fan boo xam ne da ngeen ko jàpp dem ci place à mu nekk ci xolu dëkk bi ngir jàng fa am ay yoo xam ni da ngeen koy jox nasaraan yi loolu luy sabab bi ku baax waaw liy sabab bi mooy eh, sëñ bi bu waxee ne inni uxaatibu nasara turaax fi ardihim bi ma la ladayhi muttarra loolu baytu woowu ila axir bu koy wax eh, mooy danaa waxanteeg nasaraan yi ci seen goxi suuf yi loolu du sëñ bi mooy ñëw ci saayir waaye ñun ñi xam ne ñoo ñoo koy tuddoo ñoo war a war a liggéey boobu liggéey boobu nag eh, nga xam ne baytu woowu ñëpp dañ koy wax waaye li fekk mu ngi yem ci ñun rek liggéey boobu ba léegi amagut ndax nasaraan si war nañoo xam kan mooy sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax moom sëñ Tuubaa nitu jàmm la koo xam ne jàmm la woote ak dal ak ku nga jàppe ko ni nga jàpp sa bopp yi ëmbal ko aw yiw ak teraanga loolu nag njàngaleem sëñ Tuubaa moomu fu fi nit ne ci kaw suuf te surtout ñu ne ci bitim réew war ñu fexe ba ñi ñu nekkal ñu war leen sëñ Tuubaa xam ne nit ku sell la koo xam ne njariñal doomu aadama yëpp moo ko tax a ñëw ba ci ko du julli sax njëriñ bu bu gëstoo mbiram sëñ Tuubaa njëriñ la ciy gis loolu war na suñu yéene tey ren ñu dem ci congrès bi incha allah rabbi fas fa yéene def kuréelu xasida am nañu autorisation ba pare daal di sotti soutien yu bari yoo xam ne day wane sëñ Touba ak bis bi mu wootee muy bisub bernde ak sant yàlla mm-hmm. ak it ku fa ñëw danga nga da nga xam ne ci sëñ Touba loo xam ne da nga xam ne kii nitu jàmm la woon koo xam ne dafa am jàmm ba pare jàmmal ñi ko doon teg aw lor ndax moo wax ne eh, bi mu jógee ci géej gi afootu anil ahda turan li ci man dafa xam li xëyri lest at maf lest at at faw jéggal naa samay noonu ngir jëmmi ki nga xam ne dox na sama diggante ñoom muy yonent bi sallallahu alayhi kon kooku te nag li ci gën a yem sax mooy masafi kalkali afawtu ani ahdaa yi masafi kalkali mooy ci sama patience bopp mooy ci sama teeg bakkat laa leen jéggal mhm. bari waa na sax ku jéggal nit ngir xëy na amu ca pexe waaye moom mhm. dafa jéggal te bi mu jéggal da ko def ci teeg bakkanam maanaam xolutut lor yi ñu koy lor xolutut lenn lenn lu tax mu jéggal waaye ci teeg bakkanam la leen jéggal ba pare ëmbal leen yërmande ëmbal leen sutura kon sëñ Tuubaa moom nekk def ba jóge fi mës sa lor ab jullit waaye mosul lor am nasaraan te yëmu ci bañ leen lor waaye waxtu wu ne mi ngi doon bëgg ñu am yërmande suñ boroom waxtu wu ne mi ngi doon bëgg ñu gindeeku nekk ci li suñu borom bëgg ba am ak texe ëllëg waaw sëñ Tuubaa moom kon daal moo mooy loolu bu ñu wax ba ba ba ba ba matale ko waaw jërëjëf mm-hmm. mu mel ni mbokk nasaraan yi daanañ wuy ci ci bis bi mm-hmm. seen programme bi ngeen dooree dana tax yaakaar naa daañu ragal ni dana gën a yokk mm-hmm. programme yoo xam ne bu ñu ñëwee mën a dund li nga xam ne moo di bis bi xam ko dëgg ci ay kàddu yoo xam ne da ngeen ko joxlante ak ñoom wala it xalaat ngeen def ay lettre maanaam ay kayit yoo xam ne ngeen ñoom ba kenn ku toog ñu mën jox loolu nga a xam lan moo tax. waaw màggal gi ak yéen nga waaw moom incha allah dafa fas yéene eh, bànkaar yi nga xam ne tiréwoon nañ ko muy ay archives yoo xam ne day wax ci Serigne Touba ak exil bi ak aw doxinam ak dundiinam ak fi mu jaar ba defar doomu adama yi doon saa nafin bi laa dara ren. Mm-hmm. doon njëriñ lan teg lor njëriñ lan teg lor nag tubaab baak jullit bi ñëpp mën nañ caa jariñu ñu gis ne mbiram sëñ tubaab fi ne moo mën a régler àdduna te loolu ñu ko war a liggéey mooy nu ñu ne ci àll bi ndax bu dee Sénégal xëy na xam nañ sëñ tubaab xëy na am na lu ñu xam ci moom waaye tubaab yee ko gën a réere kon nag mbiram sëñ tubaab dafa jot fi ne ñu jàngal ko nit ñi ci biti ñu xam ko te loolu nag ki koy jàngale daa war a ne ci moom ba tax na waajal nañ ay pancart yu bari yoo xam ne incha allah rabbi eh, dana dana xam ne sëñ tubaab ci dundi dundinam ak doxalinam ak fi mu jaaree tubaab bi ba ñëwaat ba ñëwaat Eh, danañ ci waajal yu takkoo takku daañu waajal tamit ay saaru livre yoo xam ne nii day wax ci sëñ Touba eh, exil bi ba képp bépp tubaab bu fu ñëw daal wax daañu la bernde mm-hmm. ci teraanga xeeti teraanga yi nga xam ne yu fi am yëpp fas nañ ko ne berndeel leen ci waaye duñ yem ci bernde gi ci loolu waaye daañu leen jox lu ñu yóbbaale mm-hmm. ndax ki la wuyu si bu fekkee amul leneen loo teg ci ay loxoom mm-hmm. du xam lu tax ngay def li ngay def kon nag li ci baax mooy ki ñuy defal anniversaire bi di ko màggal moom mooy kan boo wanee mooy kan ba pare nag waneel moom lan la andil société bi. Mhm. lan la andil àdduna mu doon njëriñ loo xam amul lor njëriñ la amul lor nag ku fu ñëw te xam na mu demee da nga da nga sàkkoo xam mbirum kooka. kon nag fas def ci suñu képp kattan ba ci xeeti jàngale sëñ Tuubaa ak dundinam ak doxalinam. ak ni mu def ba jëriñ doomu aadama yi te lërul kenn mhm. fas yéene mu tasaaroo ci réewum Argentine incha allah euh, ñu ngi lay bu baax daañu des ci loo xam ne lu am solo la yooyu nga tudd lépp def naa dana laaj programme waaye dana laaj ne lu takk moom moo koy def ci wàllu addiya naa it ñun murit amuñu kenn ku dul ku tedd ki lu ñu am lépp it moom la ndax it jamono bii lépp yemb na ngeen ngeen def loolu wala lan ngay soññ ci bokki taalibe yi ba kenn ku nekk jàpp ni bi bi tey la koy doxaleewu boo ko mënoon yaa war a yëkkati def ko loolu it yaakaar naa nekk na loo xam ne dana am solo waaw waaw moom de eh, ni ñu koy waxee rek bisub sëñ Tuubaa bi eh, kuñ ci yërëm rek ñu laa dimbali mhm. koo bëgg a dimbali da koy wax ne ko da ngay def loo mën def loo mënul ndax bisub sëñ Tuubaa moom soxla ajuwut soxlawut ngànt ndax gannaaw nit ku ne bis bu ne yaa ngi cay def la nga man sa bisu kilifa wala sa bisu sëriñ mboolem bis yooyu yëpp bis bi ay gën di farata ci nun murit te bis yi fi jaar yëpp jàpp naa ne wàccaay dong la war a doon ci bisu sëñ Tuubaa bi te kuy woote bisu sëñ Tuubaa bi moo moo jar mooy bis bi jar woote mooy bis bi jar sonn ndax moo ko waxal boppam moo wax ne képp koo xam ne sa mbég sa mbég la fa la bis bi fekk ci kaw suuf nag ma ci sant la yàlla mm-hmm. te moom cant googu moo ko tàmbalil boppam wax ne li ko suñu borom defal ci ay xeeti may ak i teraanga mm-hmm. cant ak boppam mënatu ko matale ba tax ne képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég fu la bis bi fekk te ci kaw suuf nag ma sant la yàlla ginnaaw nun fii lañu fekk fas nañ yéene moom dundal ko dundal gi nag ba ñu daggee sas yi ñun ñi nga xam ne ñu mooy sas yi joxe nañ ko ba teg ci aw ñaraas dafa dafa suba daal insha allah rabbi ci altine ji képp koo xam ne sëñ Tuubaa jaral na la jaral na la dara la nga man bu dee ñeent la ñu waxan soo mënul ñeent yi war ngaa mën a indi sa ñaar yi nga am wala benn bi nga am wala ñett yi nga am waaye munu su koo sàkkalu lay moom ñu dem ba accès ci altine ji nit ñëw ci barab ba ñuy dajalee addiyee nga ñëw indiwoo benn indiwoo ñaar indiwoo ñett indiwoo ñeent kenn mënu ko wutal lay kon nag ñoo ngi fay xaar ñëpp képp ku ñëw daal mm, la ñu daggan muy sas wi muy 4000 pesos yooyu ñoo ngi ciy séntu altine soo ko mënta matale war ngaa fexe ba la nga man nga def ko waaye nag mënoo joxe mille pesos yi ñu sas mënoo joxe 1000 mënoo joxe 2000 mënoo joxe mille kooku kenn mënu laa sàkkalu lay foofu nag la ñuy xaar ñëpp incha allah bi ndax mooy bis bi daanaka moo mujj ci ndaje mi ñu war a dajawaat fas ci yéene dajale àdde yi xam bilan bi ñuy jógee nu mu toll ndax li wérti bi sëñ Tuubaa mu daañu ko def moom bu doon jaay suñu suñu liñ am lépp ba bés bi jàkk daañu ko def waaw waaw insha allah rabbi euh, mu mel ni am ngeen kër sëñ Tuubaa yàggul dara suivre nañu li nga xam moom moo di signature bi waaye xam naa desu ca màggalee ren ngeen mhm. jël barab boo xam ne fa lañ koy defee mhm. gis nañu liy wuy si dana bari trop mhm. foofu yi bëgg nañu nga def ci ab soññe yër yi ñu gën a xam ne place la boo xam ne dañ ko luye ak it ñi nga xam ni dañu dend ak moom ñu bañ koo xam ne da nga ñëw rek ngi euh, bu baax baax. alhamdulilah waaw waaw sëñ Gora comme noonu nga ko waxee rek eh, sant yàlla bu baax benn suñu borom dimbale ba ñu am kër sëñ Touba fii ci Argentine ren nag mu yàlla dogal ñu ciy door a jot mënuñu faa màggale kon li ñu yéene lépp ci bis yi xam ne nee na ci biir dëkk bi nga xam ne ku ne xam ne noo ngi ñaan yàlla déwén ñu defe ko ci suñu kër bopp goo xam ne mën a taal ay mbana daañu mën a def ay baas bu neexee fanaan fa bu bët set waaye nag nañu fàttaliku ne tubaab yi bu boo nekkee nit danga koy jox am te sëñ tubaab moo nu jàngal loolu àq mat naa ragal tey it eh, barab yi ñuy màggali ci biir dëkk bi lu muy yaatu yaatu yaatu suñu fa guddee rek mbooloo mi dina désordre mooy désordement bi la koy waral donte barab ba yaatu na mooy génn gi nit ñi génn taxaw ci biti ndax am nañu dañuy bàyyi bu guddi rek ñu door a ñëw li ñu fas yéene ren nag incha allah rabbi ngir bañ a gàddu àqi tubaab yi dëkkandoo yi ñu dëkkal bu ñu tàmbalee suba 9h ci suba fas di na ci jàngam alxuraan bi xasida yi ak kuréel yi bu ñu eggee ci 9h ci guddi insha allah rabbi lu topp ci 9h ci guddi daañu reer séddale xéwal yi bu ko defee raxas bagages yi delluwaat ndax fa suñu yéene rek tubaab bi di liggéey alxames nga nekk fa àllarba jëmi 3 heures de matin ak 2 heures de matin ak minuit ndax loolu àq lañ leen di yoreel te bu ëllëgee dana tax dana waral saal yi boo ko soxlaa day jafe kon képp koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu da nga bëgg a màggalal sëñ tubaab bisam bii bis bi dañ koy ñeraas di ko yokk rek jëmi gudd waaye yoor yoorub màggal gi mooy mooy waxtu wi sëñ bi géneen tukki te kilifa yi xam yëpp yoor yoorub màggal gi dañuy xat mboolem liñ jàng ci alxuraan kon képp xam bëgg ngaa màggal sëñ Tuubaa bisam bi waroo toog ba liggéey ba wàcc doogar ñëw kon xamoo leen sëñ bi defal ko xam leen sëñ Tuubaa defal bis boobu doo ko yemale mukk ak ba ko jiitu doo ko yemale ba ko mujj loo mën a di am ci kaw suuf donte dañ lay fay salaire te fii yaakaar naa ñu niiw lañ fi fay salaire kon képp koo xam ne toog nga ba guddi ngay door a ñëw mu mënu mënuy sulaa jàpp nit ak Pastef ndax ñu màggal sëñ Touba te sëñ bi wooteel ko boppam bu dee la ngay wax dëgg la ci yow 9h 10h war naa fekk salle bi fees dell bu saal bi bu nit ñi teelee ñëw 9h balaa 8h ci guddi 9h programme bi yëpp dana mat ku kuréel xasida yi daañu jàng murit yi béggee ko ñu def xéwal yi ñëpp a xéwlu pil h pile fas nañ yéene ñu ñaan reer bu ko defee ñu dell bu beneen jamono ñaan yàlla bu déwénee ñu dem ci suñu kër bopp gee ba dix ba dix heures ci guddi neuf heures ci guddi nga dem jaayi ba wàcc ñëw ñoo ñuy mujj ñëw ñaari ñooy taxaw ci mbedd mi gaare fi seen i oto tubaab yi di woote naan gaa leen oto yi fii nit ñaa ngi ci mbedd mi te loolu tooñ ndax tooñ gi mooy da ngeen gàddu suñu àq ñi nga xam ne loolu doonu suñu yitte màgg la seen tubaab bés bi moo doon suñu yitte moo tax ñu teel ñëw nekk ci liggéey boobu ku toog nag ba yenn heure yi nga door ñëw xam nga ne màggalaloo sëñ Tuubaa bisam ndax yow dugg nga ci beneen bis bi dugg nga ci 19 safar 18 safar timis la yem bu timis jàllee rek 18 safar jeex na bisab sëñ Tuubaa boobu mu woote yoor yoor la kon képp ku ko bëgg a màggal yoor yoor bi war naa fekk fañ koy defee loolu daal moo doon suñuy kàddu fas nañ yéene daal képp ko xam da ngaa bëgg a fekk doo fa ko koy màggalal ndax ñun fas ñaan dem ndax bëggunoo yàq nag liggéey bi ñu liggéeyan waaw ñu gërëm la mu mel ni dëkk bi am na fu mu toll doo dugg ak samante déggoo suñ mbokki jàppante ak police wala ñu demee ne espace mm-hmm. màggal nekk na occasion boo xam ni dana dajale yaakaar naa ñu fi nekk ñëpp seen programme bokk na ci Euh, fexe jàkkaarloog ñoom it ngir gën a waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ñu gën a it mm, bàyyi xel baax ci dëkk yi. waaw incha allah rabbi ni ñu ko waxee woon ci waxtu yi ci ay interview yu bari rek di wane ne war nañu seetaat suñu bopp bu baax ndax réew boo fa ñëwee war ngaa soxla woo xam lu waaye dëkk ba te gis nañ ne ñun ñoo ngi jalgati lu waa dëkk bi bu baax a baax te yëguñu ne sax ñu ñoo ngi koy jalgati euh, dëgg la naam mu ne si wax ne bàyyi leen mbedd waaye nag rafetal gi daa am solo ndax. ñu ñu ne la yëkkatil nga nga ne du ma jóg di forcer àgg ci di poñante ki police ak loolu moom duy teggin du yar te it du xam li nga war a xam ndax bu ñu la fitnaalee ndimbali da nga koy sàkkoo ci ñi nga yaakaar ne mën nañ la caa dimbali muy Sénégalais yi tooñ tooñaat nag du fit waaye ak ñàkk xam dara la ak ndof la wala réewande kon eh, nañu xam ne ay teggin am na solo ci nit ndax sëñ Tuubaa wax na ne huwa allazi jaala xusnil adabi yubqi jaxaalatan wa xubxi nazab teggin mooy loo xam ne dina nëbb askan wu suufee dina nëbb ñàkk xam dara waaye ku amut teggin kenn mënu laa protéger ndax loolu sëñ Tuubaa moo ko wax maanaam ku amutub yar amooy teggin kenn mënu laa aar kenn mënu laa taxaw di xeex di xuloo comportement boo xam ne rafetul jékkul ci doomu sénégalais te ñoom bu gisee benn sénégalais boo xam ne wane def na loo nga xam ne du lu rafet dañuy àtte Sénégal yépp ci loolu ba ci colin yi ba ci ne ci kaar yi ba ci banque yi comme ni ma ko waxee woon yar ay bagage yu bari dugandoo moom ci kaar bu fees dell ak ay nit nga daal di xatal ña nga nekkal modeste leen ñu ne pat duñ mën a duñ bëgg a wax benn baat ngir boo waxee nga ne leen da ngeen raciste nangam ku koy def nga xam ne defoo war a def te yaa ngi def loo xam ne day ñaawal deru Sénégal yëpp yar table weer bu mat 1 mètre 50 dugal moom ci kaar te amoon nga yeneen pexe yoo mën a def xëy na ba loolu du am yooy yëpp ay àq yoo xam ne. mat naa moytu comportement ba ci colin wi. sol tubéy joo xam ne yaa ko bàyyi muy ruggee ko sa tubéy ju ndaw di feeñ. ci góor lu ñaaw a ñaaw ñaaw la tubaab yi ñu fekk sax bu ñu la gisee nga def ko duñ am dara lu ñuy yaakaar da ngaa nekk ci borom ñaari tur yi wala leneen kon góor tubéyam da koy ñoddi ba mu ba ca kaw mu takk ko ba mu dëgër. waaye bàyyi tubéy mu yooru ba sa tubéy ji jiital di feeñ. am na ci ñooñu sax fi ne mënatuñoo dox normal dañuy yàngu bu ñuy dox ngir tibéy ji. yooru gi muy yooru moo waral mënatuñoo kebale seen tànk dox normal dañuy yàng seen tànk te bi bañ a wadd loolu nag lu ko jar amul ndax booy roy da roy loo am njariñ waaye roy loo xam ne kenn xam fu mu bàyyi ko wala boog dëkk bi nga koy roy ci ñoom ñu ñu wut ñuy dara ñoo koy def waree su ko roy sol yor njañ loo xam ne doo ko toppatoo doo ko defar kenn xamul lu sa bopp yi nuru koo ko tuddee ak noo ko mën a tuddee yow yaa ko tuddee waaye jegeñoo koo ko sax boo yoree sa njañ wala nga yor sa bopp boo xam ne xëy na da nga ko war nga koy toppatoo di ko rafetal di xeeñ gétt gu baax gu neex sol yére yu set booy dem ci ay nit ndax nit na bu nekkee ci biir nii daawar war da yëfi nit waaye yor melokaan boo xam ne boo jubee mbooloo ñu ne ñu daal di wane ginnaaw wala nga war wane ginnaaw ñu tekki baat boo ko defee tooñ nga mboolem kuy sénégalais kon ba ci dëkkuwaayu kër yeeg xataayu dëkk yi nuweeg yëpp nit balaa tal kenn daa tal boppam ba pare mhm. fi nga dëkk fa la yàlla féetale sa lépp fa la ne kon war ngaa fexe diir bi nga fay nekk li ngay am nga xajoo ci sa bopp ku ñëw sa kër guddi police la boo xam lu mu doon war dafa fekk dëkkin wu set boo xam ne du nekk ay bagages yu ñu jàll lu ne nga dugal ko ci biir ne kër ga dëkkin dëkkin boo xam ne ku fa ñëw fekk la fa guddi doo xam ñi nu ñu dëkkee loolu yàlla tegu leen ko waaw. kon waaw kon ñoo ngi sant ñëpp te di leen xaar ci bis bi tey woo nag mbooleem jëwriñ yi ak mbooleem ko mën a teew altine place boobu caam foofu la ñuy séntu pësteef yi mbooleem ku di taale bi képp ku mën a romb li ñu teg sëñ Tuubaa jaral ko bis bii mooy bis boo xam ne fu fi ñaara dende loolu sëñ sëñ bi waxat nañu ko kii di ko fonk ki bañ ko fonk ki ko fonk du ñàkk gis lam tiimi ko du fonk bu faaw loolu sëñ dégg na sëñ bi wax ko ba tàyyi ku la ci raw dootoo ko séen kon bisab rawante la képp ku ne nag sëñ Tuubaa jaral na ma nàngam te ndigal li mu fi bàyyee muy jumaa ji ak bisab sëñ Tuubaa bii jaralu la dara la nga doon wax ay wax rek lañ ko mën a jàppe waaye wérut ci ñun kon ñoo ngi xaar ñëpp ci àddee yi altine incha allah rabbi kon daal foofu la ñëwale suñu kàddu suñu góor yow di la sant di la gërëm te ñaan sama borom yàlla bi dara tawul mu yokkal la sa liggéey bi ba bañ koy dégg ci àdduna bi fépp barke Sëriñ Tuubaa waaw jërëjëf